loolu la ñuy wax yiis bu jëkk daana dégg baat bu ñuy tuddee caraïs moom ñu nga diw dafa dof ba caraïs waaye ñuy nañ sax dof ba caraïs ci sëriñ bi rek te xam ne sëñ bay dëkk kenn dama waxoon naa ko fii Cheikh Abdou Samad ñëwee ki jom mi gis jinne ji yow mi ko tiim muy muy wexoo ko aka wax ya muy wax aka defi façon yow mi gisul li ko sadd yow xamuloo li xew kon nun li li li nu ci sóob moo nu ci wommat li nu dal nan nu ko bàyyee fu lu nu jëmee bax duñ dëpp duñ bàyyi duñ dellu ginnaaw duñ découragé duñ tàyyi duñ sonn gën a foncé rek saa yu nu xëyee képp ku nu ci découragé loo nag yaa nuy encouragé bari na ku toog di wax nuru kuy sànni xeer yoon wi nga jàpp ne dañoo naqari fekk dañ lay yërëm te xammee woo ne yërëm yërmande jën la yërëm boo ko xamoon danga xam ne li ngay wax duggunu kenn mënuñu ci changé ndax loo fi indi lum doon bis bii ñuy màggal ñu ne la oto yaa ngi fi fees del dëkk bi xat lool am na ñoo xam ne sax mënuñoo agsi ñu ne mooy giseb Serigne Touba ak boroom Daarul Muxti bi mu jógee ci géej gi lu sëñ Touba jóge demoo yoon ci géej gi liggéeyal Rasulullah man zanna anni li ghayrillah murtahilun aw li siwal Mustafa al Muxtaari fii safar sëñ bi nag mën na waayam ku man ku am sa waay it def ko nin def sun waay tey xaar mu def la ni sun waay di def waayam waaye boo góor góorgóorloo ba am waay it ba def sa waay na def sa waay ni sun waay man la sa waay mënut kenn tërewul kenn dara ñàkk jom nag weesuwul ba fi sa waay dugg ci waaye jàmboor di ca critiquer nuñ ko jàppee nuñ ko du defee ginnaaw am nga sa waay indi teg rek ñëw yeew sab gàtt ci daral gi nag di wër xarum jàmbur dañ ko xonteeg dañ ko rëggut ak xar mi daa cuxur fexeel ba sam xar jar rek te nga génn ci xari jàmbur yow banok sëñ rek din ko gëmee bu dul noonu sa yoon newu ci yow ginnaaw gëmoo ko laaj ñu la ci xalaat duñ dëpp de duñ dàcc de duñ sonn de te duñ bay léegi la nga di koo xam ne jébbul wut du murit dara intéressé wu naan nañu nañ jàppe sañ Tuubaa kenn mënuñu ko tee jàpp kenn duñu ci conditionné nag noonu lu nu dal sëñ Tuubaa nu ko yóbbe moo nu war lu jar rokkosu ci moom tey gën a jëm kanam léegi kay li doon nun de duñu contrecarré kenn nag la nga am saa yoo jëlee sa kok teg nu bàyyee la ko indi suñ kok te bu ñu ci géew bi ñëpp ku ne indi waayam it bu waxtane waxtaanee ab dig ñu naan bàyyi leen léeboo yéeg yeen da ngeen di jël señ bi tek ko place yàlla yalla fekk ñak lo wax na sa waye jeexal loolu rek la loolu rek la motax baxam gi fuñ toll diko wax jikkom ji fuñ ñu toll diko wax kum neex bindal ku bindal toll ni nim bind ci qualité quantité amul binde ko nam ko binde binde ko fam ko binde amut rak jox dekk bu toll ci 40 km mu gor ni mu def mam tierno la def Cheikh ma Samba la def Cheikh ma dumbe mom la def kenen mom la def kenen ku man defal kon ndaw ñi di doora a bu len gessu ñi ne ci ginaaw internet yi di wax ku man da ngay woné ku man da ngay woné def lu leer waye ci bir mourid gi gis na ño xamne da ngay gis en general ku wax ba nopi ñu croix ko di ko corriger xana xamul xanaa ne boba yow sogé na la man bala ma rek ma door la misil soxol yëngu nga wax da damay xam la gagné na la yow éliminé na la dé bataille la parce que xam nga ma xawma la yang may top, goudi gi do nelaw ngir di corriger man ma ngi nelaw ba ma la waxon ma tek ci lo gëna a diis bu ma la ci tegalee ci benen bu gëna a diis nga nekkati ci sa temps bépp yang koy def ci man ciono rek la lay jural té duma bayyi nak ki la def ni nga mel war nga goré sëñ Tuubaa kenn du lekk teraangaam di ko bàyyeeki noonu ma gis ci moom ci onze ab tëre ko jàpp moo tax jatt ragg rek laa gis ci mbiram xol bee jeex nag xol bee jeex nag xol bee jeex xunuti yi ngay gis yëpp li ma leen di wax xabatu rabbi wa rasula wal kitab mustaxnin an xisaab bi sawaabi sëñ Tuubaa daa xuuf paa daa ngoor yàlla ngoor yonent bi ngoor alxuraan mi ne boo tàmmee bul paa bu ben way xuufee pa pënd bi xunutu yi mo yobbe gaay li ñu ñuy li di tar mais baye ba ngeen xamné pa bi jeex na Ahmadu dam dan na dara dis fi moo buñ bayyi de bay bo ñu tuddee ñi ñuy bokalé baxna ginaaw nu ndu yow lañ gëm loon wax bax ay duñ bayyi de billaahi duñ bàyyi mënoo leen no depp de da no gis lu wóor ki lu gisoo ba nuy dara dëppun waaw ko xamne ci ay ginaaw écran ngay laqatu di wax ah li jënd sa bop teul kenn mun ñen ñi fañ tukki mënuñoo ñibbisi amuñuy keuyit rew mi amuñu fi lenn lu yek fuñ fi def seen xol yi jeex ndeysaan borom xol bu jeex ak metti day to rek aljana jageena na Modou Kara wax na ko fi barki dem aljana bu sa xol baaxee ëmbalo kenn safar yaangi dund bu sa xol boné yaangi sawara rek ndax ci tang ngay dëkk ak en bu lu mu sedd sedd da ngay fat bo ene ko mënalul dara lu mu sedd sedd da ngay fat da dang koy setan nan diggal gànnam yi rek sa way diggal ki limi wax rek fek gànnam mom booba ma nga cëpp jàmmam jang na xasaay jang alquranam jang alxuraanam mo xasaay as kafeem tok deg ñu ko sang beeg yaram bi ak señ bi yow ngay kaas bu ko defé ngay gëna jeex gën rag gëna dëndëm sa kita ngay yak ngay xëttawoo ay saga ak yoy te amul solo du fi amé junne ay eh, wax du ko weddi non dun bàyyi lol dal la len don jox ci magalu daaru gi wan len ne yeen nun dun ba no dof no tay bamé yi ni tabax bu ñuy jox seen borom xaliss duñ gis da ngay dundu ñu de tab ñi ñuy tabaxal tay gi seeni kër seen imam ci mbari ngeer lañ dan nek ak dor dori ngeer tay ñu di len tabaxal bañ wacc ñu tabaxal len seeni barab seeni barab di genn atiyé dañ leena wagar ñu dañu wagar suñ ñoñ ba buñ leen dencé tapat lañuy def jël mbajj sang ci ngir wormal suñu sang diko ziaré ji ba defar barab ba jot ñu defar bu dee addi yi ñuy joxe tuumaal nañ ñu lu ne jiiñ nañ ñu ay agresseur jiiñ nañ ñu jaaykati dorog jiiñ nañ ñu ñoo xam ne dañuy soppi xaalis lu ne jiiñ nañ ñu ñoo yay nag ndax ponk yuy liggéey di joxe te fa wërsëgooy bàyyi ko xamuloo ko dang dange nga wet ku nekk jaay nga jërut lepp nga muy dóor nga dil nga yee nga dara dikkut nga jàpp ne ñiy def ñëpp ay bandi lañ ndax jaaroon nga ci bandi amoo dara te man damaa waat ci yàlla ne waa jii di wax lii xar kanamam bii boo ne ko jàkk xam ne yàgg naa def lu mu waxut moom moom hmm. ah kanam gu yàqu yomb naa xam ah, boo ko xoolee rek xam ne ki yàgg naa def lu mu waxut hmm. ah, ah, loolu ñu naan dañuy boo événement sàngam ba événement sàngam la ñuy tàmbalee xaalis yi nangam barke boobu ñëw ci sëñ Touba ak waa këram kenn mënu ci dara kanam rek lay jëm kon nag nan ci ne rek doon waaye wax baax lunu nu wax baax jere nalin, ngeen jëf gërëm na leen ngeen baal maq yalla na nu gërëm nangu nu lepp kon nak bërepp baangi na ngeen ci bolé ñaan bu bax rek ci barki khatim rasul bu yame tayit neexna na ndax amna ño xamne amuñu tay duñu amal lekk leg leg nga di ko naan rek fi nga neddi di fi nga nekk di ne bari na ko nan man aduna wu ma ci soxla aduna bala nga ko contre da ngay nek ba ba nga yor ko téye ko door ne bëgguma ko <laughs> waaye man bëgguma man man man man bëgguma ganaar te mënoo am ceccax <laughs> da ngay bàyyi ba yëpp nag gar wër lewet gu ne nga ne man wan naa ko ginnaaw loolu moo digg dëdd waaye di dégager looy encaissé loo amut bëgg ko am di ko lijjanti tax ngay tuumal nit ñi di yàq derub ñun jiine lu ne nga di ko wax di attaqué yoon wi te ñi gën a ndaw ci yoonu murit te bokk ci Serigne Touba dëkk yéen am amoo ko lañ defal lislaam defaloo ko lañ yor ci mbooloo di leen yar di leen jàngal alxuraan di leen dundal defoo ko tey jii njabootu Serigne Touba gaa ngi ni wëral ci biir réew mi fépp waxuma ci bàttin waaye li yoonu murit investir ci biir yoonu murit ci biir Sénégal waxuma bàttin buñ dindi woon lañu fi am ciy jàkka ak i jumaa ak i daara ak ci économie bi seppi teg nee xoolal liy des ci réew ci sayir donc waxuma nag bàttin kenn ku attan responsabilité dépasse bi sëñ Cheikh Saliou di joxe ci daaraam ci gaa yi di coow li ñuy dund ba ba ñuy dee mënuñoo joxe dépasse weer bopp seen sëñ Cheikh Saliou dix-huit millions par mois ñu koy def ca Porokhane sëñ Mountakha di ko dundale ay soxna jaara ak di leen tàggat kon loo am jox diine loo jur jox diine koo yar woo mat la ci diine kon nag damaa jàpp ne jeneen diine ju bees daa am jun bëgg a wax waaye ginnaaw ñun ñu ngi jublu penk di wax ashhadu an laa anna muhammadu rasulullah iyyaka na'budu ji ñuy wax ñun iyyaka bu la ñuy wax ñoom duñ woor ramadan ñu woor weneen woor duñ aj makka ñu aj feneen benn téere bi ñoo ko ñooy bokk alxuraan mboolem lu julli di def noo koy defar nag ñoom ba noppi def ci de plus mooy fekk ko yàlla jiital ñu nangul ko ñoom ñu manqué point mooy gëm yàlla arkaan yi juróom-benn la gëm yàlla gëm yonent bi gëm malaaka yi gëm téere yi gëm dogal yi ñoom matal nañ juróom yi waaye benn bi lañ manqué mooy gëmub dogal buñ gëmoonub dogal dañuy nangu ne ni sëñ yàlla bo gëmé ne ni sëñ Tuubaa mel yàlla rek da ngay xamné faalu lima yurid yafalu ma yasha yaxtasu bi rahmati man yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla man lépp sañ lépp lu ko neex def yàlla def sëñ Tuubaa ni mu mel boko defé rek am jam boko bëggé noppulu wayé nak ku jàpp ne tok di di nga tay tax ñu décourager xana kay dañ la dut faale ba noppi te dañ laa gisut te señ Tuubaa kat li gëna metti ci mom moy sa yo djubé di bak baq am liberté do dox ba cëg dem ci ndaje ko la woo kook ngay jëk laaj ndax so fi du dal ndax neena lu way yene bala nga dee mu dal kon nañ ci bu ñu décourager de ndaw ñi ma ngi koy wax nañ continuer ñu décourager ñi naan la diiné diiné yépp ñu yëpp dañuy soob rek ديني لجنت دونغ لنير واي سنة سلير إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع ديني فيناس مانك بفكينا فنجن فيناس دا تك بروسي بي يقو سبخل دي جيخ بركي دي مولا كسو رجب جل دي نيار فوكي فن يا جروم نيار تيوير رجب فوكي فن يا جروم دي دار المعطي بو تابي تي خيتلا دي سيما سامبا ندوكو تيوير كور سين شعيبو نيو سوخنا ماي مونا espace amut foo leen woote amut te boo leen woote kenn du ñëw ndax koo leen di wooteel ngeen amut amoo leen it loo wax ndax li ngeen di waxal sëñ bi du ngeen di wax te yéen amoo leen koo leen waxal andi leen seen kok loolu rek la bala ngeen man bala ngeen ma woon a neex da ngeen di am jomi ne lii ngeen di wax ci seen waa yi melu ni saa waa ji moo mel nii waaye yéen da ngeen amut waay foo leen koy jële yàlla ak rasulaay mi ngeen di wéeru moo leen jëkk jëppi ndax yonent bi moo ne man aadani waliyan faqad adantuhu bil harb yàlla hadiisul qudsi la ku ma noonu wenn wali yu déclaré naa la guerre naa la guerre lu jóg ñu ne biddaa man ahdasa fi amrina maa laysa minhu maa laysa minhu maa jooju maa laysa minhu ju moo la jaaxal xanaa dégg ku sos ci suñ mbir yi lu ci bokkul jàngal xuraan daa bokkul ci diine daje di daa bokkul ci diine togg di daje di tudd yàlla daal bokkul ci diine jokk bokk daal bokkul ci diine màggalu yàlla màggal daal bokkul diine maa an ahdasa fii am naa maa lay si minhu lox lu ju bokkul yii nii def ci lañ bokk ñun sunub sëriñ day tere bidaa jàngal nañu diine yaruñu ci diine ba kenn mënuñoo soppi buñ atte sëñ tuubaan nag ci ñi ci mbedd ma mu neex nga dajeeg moom hôpital bu ne am na margo foo dem ëhlu nangam ne fa leneen am na nit nag bu sonnee boole kook jom mi ab xolam day jeex weles meles jamiy defek wëndeelu ko da ko koy yërëme rek yàlla na yàlla delloo si la may la ndox su set ba nga mus ci bamba ji sa noyyi nga mën a yegg nga mën xéewlu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah